ولرئيس الشهداء حمزة sëñ bi ñu ngi lay nuyu ci turu kër gi nga bokk njabootu Cheikh Sohaïbou bi ñëpp ci ndigalul kilifaam di sa kilifa di suñu kilifa di kilifa kër gépp sëriñ Seex Ahmadu Mbakke te bi may ñëw ma ànd ak jëwriñu ñu rakkam sëriñ Abdul Ahad di jëwriñu kër gi di imaami kër gi mu ànd ak sëriñ Fadlu ak mboolem njaboot gépp ak jigéen yi ci kër gi yëpp sama mag jigéen yi ak sama jigéen yëpp fekk nañ leen di la nuyu ci turu ndegam nga ak sëriñ Soxna bi benn néeg ci kër Sëriñ Tuubaa ci nga bokk moo tax ma jaar ñaata buntu ma waaye ñu ngi nuyoo ci turu njabootu Seex Xadim bi yëpp tekki na ci bopp bi mooy ak si Sidi Muxtaar yàlla fa yàlla yàggal kër te doomam ñëw fii wax fi kàddu yu rafet yi ak wax yu rafet yi waaye sëriñ maam moo doon sëriñ Fadal li nga xam ne ànd ak sëriñ Cheikh Awa Balla ak boole ko yi àndal man nañ fay wuutu boole lépp ak sëriñ Tuubaa yëpp man fay wuuti fii sëriñ Sëriñ Muxtaar kon nag ci turu ci turu baax na ñii ñu nuyu boole bokk tey fi teew bay bii sëriñ Tuubaa wax nag وصحبة لمن حمزة ولرئيس الشهداء حمزة yaakaar naa moom moom fàttali ko bi ma ko bi ma ko tuddee Seydou Souhada yaakaar naa am na ma kon maa ngi ñaan barke sëriñ bi barke koy wi ak sëfër koy wi ak mbootoon koy wi dal ko sakal ko jënd sëriñ xam surtout sëriñ Touba sëriñ Souhada bu duppee te gis naa ba nga demee àdduna fa ko sëriñ Soxna bind ak waxtu wa ak bis ba ak lam la ca waaye sëriñ Amsatu moom mii am bis sëriñ bi woo ko mu ñëw ci tinde këru njëriñ mu toog ci xayma bi mu nëwee loolu benn naan naan fekk fi ñu toog sëriñ Amsatu jekk jekk sëriñ bi la ko may ko tuuti mu may ñu am diir suñu woowaat mu ñëw fekkal dina kooka ak benn benn dafa am mu ne ko ndax xam nga kii fi newoon mu mu ne ko day dem mooy Seydina Hamza mi nga xam ne mooy bàyyi yi ci bàyyi bàyyi taxaw te doonoon ak njiite ca xare ba dafa am jot ko mu ne ko dama la doon faafu ci mu rafetal dara dara jaaxle waaye man ma ne ko loolu kon nag ñu ngi lay ñaanal sëriñ am sëriñ moom itam dara jooju jooju sëriñ Tuubaa rafetaane woon rafet rafet rafetale woon ci sëriñ bi sëriñ bi am sëriñ am sëriñ rafetale kon nag sëriñ am sëriñ di nuyu tey sant kuréel yi sant yëpp jaaree ko ci njiitu waa Muqaddamatul Xidma di gis ngeen ne mbirum suñu waa kanam rek la ñëpp mu tàntaan gannaaw te wàccal ca boobu naa te war nañ koy foo ko xoolee rek gis ko bi ñu julli sëñ Abdou Ahad mag ji ni man man maam ñu tànn ak mu jiitu mooy sëñ Soxna di jàngale ki gën a mag doy na ci suñu lépp di ci lu jotee ñu ne ko doxal dafa woo sëñ maam moom sëñ Seydou Mbengue ne yow yaa ngi jóg yaa ngi jiite sëñ maam moom daan sëñ bi taxaw ca moom la faaw ñu jiite loolu ana ana moom moom ak nga ci jàngat ñoom dañoo dañoo woon ñoom sëñ Tuubaa bàyyi ci tey kenn desul fa tabaaraka Allah di ci lu jotee Serigne Moussa Ba Cissé ba maa bëgg a jiite. Sëñ Fallou bi nii moom laa jiite naa seen si Touba. mu ne ma nii moom laa jiite ñax naa seen sama suuf Serigne. ñu jéem jéem jéem jéem rek. ba sëñ bi mu taxaw jëm jëm boo xool sa sori. Sëñ Sëñ Fallou la ko. danaa def liggéey waaye waaye nag moom sax sax man na ma ko dogul ma ko dogul ko def. mu ne ko dogul mu. mu ne ko sama jiite bi ma leen jiite. ku ma ku ci ànd ci liggéey nañ ci jëngal kooku jiite tey nañ ko jëngal. moo tax sax ma xam naa ko xam naa ko xam naa ko xam naa ko. kon nag nag yéen yéen yéen am nañu jëngal. njaboot Sëriñ Tuubaa nag noonu la ko si fàggoo kenn ku ci gis sa morom day day la koy xool xool seet boppam ba muy gis loolu tënk lépp sëñ bi rek baaxul woon ونزعنا في صدورهم غل إخوانا على سرور متقابلين سلي صالح رضي الله عنهما وفق الأحد لأنه عن كبر بسلي توبا فك سلي عبد الأحد حفظ من ñaan buy dugg si sa la dugg des si biti si la dugg di ñaan buy jël jëf la ñoo am fekkaat kat ko jiiti da nga wax sëriñ bi maa ñaan dañoo am ay digg ko du ko waral mu ne ko boo bëggee digg naa ko boo ñaanee yi dañuy rek dama ko fàtte loolu mooy nit kon nag ndax seen ci waxtaan bi xam naa sax sama ma ma xaw a sot dana ci feeñ damay gàttal rek si am si dugal ko xam xam xam na moom fay génne ndax nee na waa bis bis wax na wax lu ne daaw ñàkk nañ ko ne ndax dañ leen tudd ne ma loolu daa yi mu fàtt fàtt sama maraat yi ak as yi daal moom fu may taxaw ko waaye boo ci mujjee moom moom moom matal na noppal itam ci loo xam ne mënta ñàkk sant nañ ma ñëpp bàyyi wuñ kenn ndax ku ci ne seen ñëw ñëw ba ci ñi bokkoon seen si waa ñu tey dañuy ñoo yem yem ci doxe ba ci seen si Abdou Lahad ni bis ma jëf nga fi jiitu jëm moom te noonu la ko ñëpp ñëpp jigéen ñi ñeeg ñëpp toog ba ëndi ku ne sa alal ñëw ñëw loolu la xam nga xam ne fi seen seen moom moom seen si baa baa ko xasee moo tax ak ñun ci ak ñun ci kon moom yow la ñu ñëw ci Sëñ Tuubaa tax moo leen fay te moom ñi mu war dafa am waaye dafa wax ne daaw yi nga defee fii yoon dafa am ay jafe-jafe lool suuf si nooy yu bari bari cam am ñaari teel bi jaayante na balaa di leen dañ ko defal muy Serigne Mandiaye Diong ak Serigne Mass Diop ñoom ñaari ñuy taxaw ci kenn ku ci seen alal ak seen man-man ba def ko ràllam moom nii ba nga xam ne jafe-jafe jafe yi jeex na loolu nag ko defee tey si tax def ko ci sëñ Tuubaa ba tax njaboot sëñ Tuubaa bi nekk wane wane ko seere leen gërëm leen di sant leen ci turu njaboot sëñ Tuubaa bi tey jàpp naa ne li ko xonqal moo koy ñëwal muy xas-xas bi ma cax cax ma jàng jàng xas yëpp ana kan kan moo jëlee xas-xas bi Tuba Sëñ Tuba Sëñ Tuba Sëñ Tuba Sëñ Tuba ca Tuba baa ngi jóge ca Tuba baa ngi jóge ko tàmbalee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke sëñ Islam bi ñetti at bu mu jóge Mbàkke Kajoor bokk na ci ñu amoon sëñ Islam Fall moom mi sëñ bi wax ne Ibra Fall kenn deful lu ma toog kenn deful waaye waaye ma yàlla defal ma def bi ñu dikkee ba Mbàkke am na ñaari at mu sañ sa def salaam ñëw sañ sañ ci Tuuba diggante boobu bépp li ñu xam mooy si sikar fu suñ si mën a ne dañuy ànd boole seen baat yëpp ci jëm ci yàlla wala jàngu xasida booba suuf lañ ci xam waaye yëkkati ko xew ko doon Sëriñ Moor ku na Mbàkke moo njëkk a yëkkati xasida ñu di ko ci roy kon yéen yéen waa Muqaddamatul Khidma ñu war xasida yi jàpp naa ne fii ngeen nekkee xasida yi ñu yeewoo suñ suñ Moor Mbàkke moo ngay def xasida yi fii la toll léegi ñu koy jàng ci suuf si ñu koy jàng ci ne ci France ci fépp da ngay xam ne sëriñ bi xettal na yonente bi lii la waaye yonente bi fay na ko. kon nag dañuy dañuy rëy na. mel na nga war a mel ci góor lépp am nañ ko waaye sëriñ Sam Sam nee lépp yéen waa waa Sasa yi nam nam ci ci am yéene. yéen a ko tàmm doo ko fekk si kon nag boo dee waa yi yéen a yéen a yéen a yéen a yéen a ci réew yi ak yéen a ci réew ak ak lii yëpp ñu ngi ci biir réew ak réew ci ci suñu sëriñ sëtu ak ak mboolem njaboot suñu soxna yi ak njaboot suñu tubaab yëpp yëpp suñu sëriñ sëriñ ne tànn na ci bopp ñu ngi leen di ay sant te di leen soññi te di leen dokkeel ci bis bi te di leen ñaan yi tax li borom dañuy lay xasi di ngeen teg teg seen loxo te yéen di fi sàmm ci yéen ñaan di yeesal nag su gaa yi teg seen loxo di ko seeree ba ñooy ñaari malaaka yi nga xam ne tax moom la ñu ci bakaat yi. ñu ngi jaay seen seen seen xarit yi di ko fas di ko yeesalaat te def saa mu yii yëpp. bañ a yëngu seen ah, mu gën leen lu ne dëkkal gën te ñu ci moom nu fas yéene yees sa jaari bi ngi baax ndax attaaya rek ak am solo Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ne loolu man am lu ko jël ci bàmmeel lu mën a doon doon ba ay jaari bi rek ne ngeen ak ak jaari bi rek fa te Sëriñ Tuubaa daa di am bis moom mel moom bu ñu wax soxna mi ba nga xam ne ko doon nit ñi ñii dañuy wax ne sax sakaraatu mawti nga xam ne ak génn ak ak ca borom ñu di ko nekk sëñ sëñ bi dafa toll moom joxal ko baaraam ne ko mi foofu ngay dem ñaari ñaari ñaari fay laaj bu ñu la laaj yow daal wax na sama doom xam xamu ci may am doom ngay sax sa ñaari yi nga xam ne ci ma sëriñ ma nekk sëriñ ma nekk ngay wax ba nga xam ci ñi gën a xam sëriñ bi bokk ñi ñu ko topp daanaka wax ne sant naa yaa yàlla baax ci xam-xam bi ma xam sëriñ Tuubaa ba xam waaye itam sant naa sëriñ bi ndax li ma ko sant mooy woote li woote si lislaam ndax léeg-léeg li woote woon lislaam kon ko gën a waaye du ma ko jox ko ko ci ma ca te man bu ma ko defee si ba woote woon bu wootee ci woon tëj ak ku tëj ku mën a tëj mën nga faa tëj mën nga faa tëj da nga nekk sama sawar. imaam mu ngi bii ne seen ndax tamit dafa wax man man ko bii bii.

jox ko sa sàll ba mu lekk wërsëg loolu mooy indi sëñ Mbacke bu nga xam ne moom ci réew nee na xuma lu mbaa mbaa kenn mën a bële waaye ñaari ko ci man loolu la liggéey ci si baax dana la jox ko barke jox ko sa sàll dana lekk wërsëg te loolu boo weddi xoolal seen si saa yi wala nga xool seen si Bambaka. sëñ bi dafa doon soxla njëriñ xool ñu nii ma ne ay gaal yoo xam ne mu néew néew ñu ne ñeent fu mu jëm kaw. mu tudd waxtaan bu mu ne gaal yi dañuy bari bari. wenn alxam cene bu maamaam bi sama loxol bopp bi te alxam ma ci bind benn nit yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal la kenn ku ci def ñoom ñaar ñaar ñoom ñoo mën bu ñëpp ñu àndoon dañ ko jàng bu ñu ñu ñu ñu nit àndoon dañ ko jàng kenn ku ci nit ñi yor bis bu ne. lu tax mu sàmm yéen wax ne islam ak alquran man seexul xadim ñoo ñu bàyyi fu ñu yem bàyyi man ni daa leen di bàyyi ñoom alquran ak islam fu ma yem fu la ñuy yem dañuy ne alquran ak kadim ca dënd ba jàpp jàpp loolu ñu doon wax xale kii maa ko bëgg kii li ma ko jox ci abar ba ji jëm dëndëm te turam ba am na nga leen gën a bind ko lu dëndëm waxut dëgg yàlla na mi koy bind bëgg ko ñu ne li tax ñu bind ko bëgg ko ba gën ngeen tës ci seen biir dërëm dërëm rek lañ bëgg kon nag bu ma leen nee moom laa daa gën a ba ci ci turam ba ba jël dërëm dërëm xam na xam ne bëgg na dafa am ay nen ren kii bi fi ma mag bu ñu gën a xam-xam ci bu baax mu wax ma am solo solo si te te mu koy jiitee sëriñ Sëriñ Abiibu Mbàkke dafa am bis bi nga jàng waxtaan xasida yi waxtaan daan mu lool muy wax ne nii lii Bamba daan daan wax daan daan wax ak alxuraan si mu ne wax alxuraan mu ne ko tuub tuub ko alxuraan wax sax sa borom wax sax sa borom def fekk fi mu ne moom waaye nag nga jàllee si si si jàll jàll alxuraan si lépp daal di fekk ne waaye yéen قصة كاكي نضح كجنة قصة سوى كو جاب جاب كو كو دنا دنا لو كو مري كو جاب جاب دنا انا يجي يجي كو لو مجد مولا سيسري وانا حكو مهنة كيف كيف بقول خاصة دس نيجا دي كيف بقول خاصة يلي يلي تبي فكر موكل يلي يلي موكل من وين واحد من sigaaroo boo ko xam ne des des nañ ni ba ba su ko bëggee dégg sama bii may ba ma def ko sori ndax daa daa dañ fépp mu ñëw ñëw nañ ci maraat moom li ñu sax soxla moo ko yor muy fii ak ak fële jaajaay ñi nga xam ne moom defe nañ ne xasida tu yàlla ba rek lay joxe xam nga ne xaalis maraat ci gën a gaaw fi aadaalin aadaalin ñu bañ naa laaj ci banque maraat ko ci gën a gaaw sëriñ bi nga wax ne képp ku ko mën dara fekk ko moom moom boo duggee ci dàmbal mel maanaa nañ na foo sama bopp teg la ci loolu yeneen te ndax yii mooy nitu mbaaxe dafa mel naa ne koo xam ne dafa mën a ba mën a rajo bi ci dara dañ ko xam am na bés sëriñ bi ne ko dafa ko jàpp na ko na ko defal ma xam la ñuy nattal ma morom na na rek def señ mo ko dal na dem lu yow ya def fit señ señ la la xam la na la def fi ñem ñem ko mu dama dama sama dama dama dama non bu da danel dama dama dama ñu ñu ko señ waye waye ka la danel la jantal lokab dama dama ko Sering malam sëriñ bi moo mel noonu moo mel mel doomam ya sëriñ bi noonu lañ mel di koo ci fekk teg ko di wax sax ci moom da ngay def sëriñ ci moom la ñuy jëfandikoo boo demee ci keneen dañ dañ dafa defar wala taw kii kii rek la noonu la sëriñ si di mel waaw yow jàpp ko maa yàpp fitum bii siis waaw ma ko jàng na am loo xam ne bu jàng ko am ma ko waaye bis bis ni nag maa déggal sama nopp suñu soxla wax nee nañu nee nañu. wenn wenn ba ci bis wu ne wecc na ko jëm jëm jëm subaa dana joxe ba ca kër bari di tukki sa dara bu may laasa def danaa indi xayraat mbooloo leen dajee seen sadaat yi doon yëpp te ngeen xam ne sadaat dara jàpp tomb la ci ca nu jigéen yi àjjana yi muy sadaat yu bëri can-can muy sadaat yu bëri ci bopp génn boo ci wax sadaat boo wax wax sa daan ca génn génn ci àjjana te sadaat boo def def malaayika yi kat fan yëpp yëpp yëpp ne ko jiw bi jiw bi jiw moo julli ci yow yëpp sa fay ko. jiw bi bu ñu si sañ sañ sañ sa moom la nag. alhamdulilah ji ma ji guddi ngeen def jagleel moom moom guddi googu boo ñu leen di moo lay mayam kon moom kon tontu la ko. kon wax ngeen ne ne malaat yi di julli di jàng malaat ak bis bis bii ci daara ji kenn ku ne nag yéen dañuy saasante ak moom di ko jox ko tontu. guddi googu. salaatu yi yéen a ngi lay wax ne ba mu tàmbalee ba tey. ba ba tey tukki. sëñ bi daa daa béy sama sama bis bi kii la ko way way way way si bis bi. dajale yooyu yëpp boo defee bis bi nag man yëpp boo defoo. la ko daan koy séntu si si amul. waaw sax sax day foofoon. sax sax day day foofoon. sax sax amal yaa day foofoon. ba mu sax sax sax day foofoon. ba ca ca ca ca ak mbay tey tukki. kon nag bis bi sax xam ne ku jàngal bis bis boo leen ku mos a def sax sax dajale yëpp nag am naa ko waaye yéen rek waa Mara Adama yéen rek yéen yéen leen de bis si si man sa dana yéen yéen leen de. لا يوجد تلميذ xam nga xasida yëpp sëriñ bi moo ko def waaye moom la soob mu féete woon murit bi murit ci zahir mu mel ni daf ko mënta gis mu mel ni lu ko réer murit ñu di ko wër ci bagage murit mu jafe lool mu ne sama xasida gi mënu ma ko ñàkk a gis ndax mabbu liggéey ba liggéey ba sotti mu dajale ko def ko ci benn barab mu nar koo réer kon nag nañ ma ko seet beneen bi ma ciy teg Basiiru Siise doomi Jaaxa Siise ca Ndar nekkoon ci kër sëriñ bi ci njëriñ sëriñ bi fonk ko lool mu bokk ci waa daari Kamil bi keroog bañ ko bindee leen wax ko ne dañ koy bëgg yóbbu quartier dugal ko soldat dafa wax ne sëriñ bi daf ko woo murid dañu wokkal murid bi murid bi du andu tuuti kii kii. ndax jubu ne nga ne nga dem soldat nga nga toog sama lu la gën. mu ne ko liggéey ba nga liggéey a ne ko kon mooy bilaa gën a léegi-léegi mu la mu ne ko waaw kon demal mu dellu ci mbaar ñu doon bindee tàmbali di bind bopp mel na lu métti bu ñu dégg ci sëriñ bi nag ba suñu faatu mu ne fekk nooru daari mu ne gaa yi ci téere bi xaaj ko ne dem leen boole ko moom te buñ ko sangu buñ ko jullee dañ ko yàqante ndax jigéen ñi ak dina yàgg moom dafa sax moom ñu dee ci xaar xare na génnee mbubb génnee ñaan xaaju xasida nooru daari la génnee nañ ko boole ba suñu si des déglu déglu البقية حياة الجنة سابيا إلى دخول الجنة dégg nga damaa leen ba noppi ngeen taataan xam yow ma xiyaam akbar bu nit ak jinne malaayka teewee ba kenn gisul nit ñi nit ñi dañuy def dañuy wër wër dañuy wër wër am jinne yi wër leen malaayka yi wër leen kenn dañuy wàcce jant bi rësal ko ba mu sës si bopp nit ñi ba yuur yi di baax te duñu mën a faafaato nga gis koo xam ne day lekk ñax booba li waawal xam di par exemple yéen a ngi képp ngay dugg mu mel ne climatiseur sedd bi loo soxla mën a fa te boo génnee loo bañ bañ loola mën a naqari rek nga si bu génnee par exemple dina ko gis te boo duggee ci par exemple loo soxla di ko xalaat daa ngi ci day mel yàlla bi daa jaay yàlla bi mu bindee nit wut téeméeri junne ak ñaar junne ak ñaar. xamal leen xam-xamu yéen ci jox leen daraja yi ñoom ñëpp ñu bokk mu tànn ci ñetti téeméer ak fukk jox leen daraja yi yéen ci yónni tànn ci juróom ne a ci gën a wa min ka wa min Nuuh wa Ibrahima wa Muusaa wa Iisaa ibn Maryam ñëw ulul bu yawmal qiyaamati ku ci ne ci ñoom ku dul yónent bi ñeent ñi ci des sa waa kër danañ dikk taxaw la ne jaaxle ne su jur yaa ngi baax xamatuñu fu ñu jëm. wan ma ma tinu ma rab ma ku ci ne ci ñoom da ngay taxaw wax ne amoon naa bàkkaar bu ma defoon ci àddina moom laa ne si yow suñu borom jéggal ma ko te du maa raam kenn sa bopp moom la sëriñ bi waxtu nii meen yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima boobaa ñoom ñeent ñooñi Noox Ibrahima Moussa Isa te ñoo gën ci yonent yi dañuy ànd ñoom ñëpp ñëw ci yonent yi ne ko yow képp yaa mën a ñaan am ram ci sa borom dimbali nu tinnu tinaari xeet yëpp yonent bi doon xamutoon ne lu naqari am na ci bi ci doon génn ca keppaaru li waawul xam ti nag génn taxaw jàkkaarloo boromam ci jëmam ju tedd ja tinu ko tinu xeet sëriñ bi wax ne yonent bi mu génnee ne moom ci boppam mooy njëkk a ram moom sëriñ yonent bi day wax ne bala maa ram nag balaa yonent yee ram maay ram waaye bala maa ram saxaaba yi nañ ma ràmm ma gis Aboubacar jóg ràmm li mën a ràmm Seydina Omar ràmm li mën a ràmm Seydina Ousmane ràmm li mën a ràmm Seydina Ali yi ràmm li mën a ràmm xulafaa al arbaa jeex mu ne ñi joxoon darajay xawsul xutbu nga xam ne gannaaw ñeenti saxaaba yi jamono june dana am ñeenti xutbu yu yor jamono am ku leen yilif boole leen ñoom ñëpp yilif ñu di ko wax xawsul xutbu te mooy daraja jooju nga xam ne fii ne ko sëñ Tuubaa yore ci Daaru Xuddoos xeet ko doyu ko mu defoon laxasaay doon liggéey ngeen dëkk daraja joojee sëriñ bi yonent bi wax na koo daraja jooju war a ram dugal ram ma gis borom jamono yooyee di ram ku ci ne la sa daraja toll nga di ko ram yonent bi taxaw di bëcc yow ñu dem ba sëriñ bi si yonent bi ne ko abdullahi wa xadimu rasulihi yow toogal salaatare yi wuti ñee ñoo la yaram moom toogal bi sëriñ bi toogee ay doomam njëkk a jug dërëm ay rakkam yi ko déggal njëkk a jug dërëm ay seexam jug dërëm ba ñu jeex xaside yi gu ci jug dërëm mooy loolu daal moo tax soxna gu jëm jëm yow yaa xam soxna bay loolu def di ko def di ko def ba ñaan ak ki nga xam ne bañ tàmbalee ba tey moromam yi yi ñu ko woone moromam lañ ay foofu football ay njabootam rafet am waaye mooy dugg kooku anam nañ ko borom jamono yëpp wax ko ne kii ku mu yónni tamit door a yëkkati si ko nafa ba hadiya allahu irana wa urra wa bi bukhayi ibn sasa nee na yonent bi ci boppam mooy def ne ana am ku mel nii am ku mel nii ku dul man ci yonent bi yi ma jiitu ku ko jàpp na ma ko man da ko aw kon nag xasee boo xam ne day wuutu axtaar bi di wuutu loolu suñu subaa yi boobaa ma ngeen jëm di ram na boo ko xasee kenn bi des ñu yoree bopp bisimilah. ah Oudana xanaa jaaxal na ko xanaa. damaa bëgg leeral foofu tuuti bala ñu bala ñu bala ñu ko yemale fenn rek man bu ma rafet rek nga ma siñ wax damaa wax sëriñ Saliou yu nag xasida yi dañoo bari mënu ma leen a ñoom ñëpp di damaa bëgg a ma yoo xam ne yaa jox ndigal ma féeti mu ne ma la maraqib la la ne ma ñett sëriñ bi wax na ci ñoom loo xam ne wax ko ci génn kasit bu ci ne la mu ci wax jaar na ko kon nag jàppal ñett sa bopp wakaana sama bàjjan di sama sëriñ di sama xarit daf ma cee mas a wax ay wax yu bari la ma ca mën a wax mooy sëriñ bi moo ko woo ci waxtu koor génn xasida gi jox ko ne ko ah isa demal sotti ko mu sotti ko ba ñëw mu ne ko na nga ko mokkal te di ko jàng rawatina waxtu koor te gis naa ne kenn ku ne ci doomi si Tuubaa yi xasida boo mën a fonk boo koy jàng ba noppee da nga koy waaye doo ko doo ko dese kenn ci ñoom koy xëy ci jàng ko amul muy xasida boo xam ne génne génne nit ñi ci bekkoor ak réew mu am jafe-jafe ne réew yi ñu ne ak fi ñu toll moo ko taxoon a jóg ci ci booba gànnaar metti na décor bu bari la xeex bu bari la am naa génn ci sëriñ bi def xaside gi uroofi wa gànnaar xam taalif ko mu digg di ko wax sëriñ bi fekk bi def na defin bu yéene wenn fedd la ko tooy ñaari nit mu téye ko ñaari dem génn ko ko mu ngi nii kon da koo seqee ci rewu moom mos andi xaside bi nag moom li wax rek mooy doomu bi koo ci jàpp te tëkkoo ba mu yóbbu la fa nga xam nga xaaja qasaa'idi qulub al-hamala lil arsh waaye bu sonu lil kamala nit ñaa ko romb waaye nañ jàngatal loolu alaaluna min almalaayika bi ñooy ñan ñi nga xam ne ba yàlla ne malaayika yépp bàyyi leen li ngeen di def te sujjóotal aadama mii ma bind ñoom ñëpp dañoo dem def ko ba mu des iblis moo tax mu toroxal ko def ko lii mu ko def ñoñe da leen suñu borom wax ci ci ci ci yotal leen adama juróom-ñetti malaika yi ñi wax bokku ñu ci ana lu tax juróom-ñetti yi ñu tay aras buñ baye ay aras daal kon ñoom amé benen liggéey bu dul si yotal kenn da leen caa seppee moo tax ñu doon astakbarta am kunta tamina aaliin ñuy wax iblis da ngay reey reey wala wala bokku ci alxaaliin da ngeen malaika yi nga xamné ne boolewul ñu ci sujjóot ñoom amuñ jot moom nga sëriñ bi wax ba ku mokal seen tur bala nga gis ci sa kër yaa فدل ويايل ودف ياين وصف ياين وعظم ياين وكم كياين وسمك ياين وسسم ياين وزن ياين هذه ليس يموت ابدا حتى يرى وسط الجنان المقعدة نيوني يسن تيد نغا دا خامن نيوم سين ليغي ام غاني يوخني يالا كي مونكو ميسا واي وسع كرسيه السماوات والارض مي استوى على العرش يالا بودون سيتي يالا فمني بون نكو مثال دا نان بالي بالي بو بور بي نك كرسي بي ci kaw aras la ko teg topp ci moom yàlla aras moomee nag juróom-ñetti malaayika yi ñoo ko téye ponk yi juróom-ñetti ponk la ponk bu ne malaayika téye ko sëñ bi ne sama xasida yi di yëngal xol ñooñee juróom-ñetti malaayika yooyu haadi xasaayidi xuloob al xamala xamalat al arsh lil arsh waaye bu solu ñu kabar loolu ñu koy jàng dañ ko romb ci seen nit ko إذا كتبت اهتز عرش الباقي وسبحت ملائكة الاتباع moom daal sëriñ bi ndokke bi rek ndokke noonu rek sëriñ Tuubaa bu kenn kenn du noonu dafa am li tax ñu mata mën a rafet ci moom njort loolu loolu tey siir tey siir nañ ko bàyyi waaye ñeen ñeen ko féetewoo sëñ Isaa la ko sëriñ bi joxoon moo joxe sëñ Fall la di jàll mu di ci defal ku bëgg mu jafe nga bëgg mu yomb dama ci kisi kisi la bokk waaye nag waaye nag waaye nag bu leen fàtte nag jaawat mais c'est passé daal ñoom danaa ko defaral di nekk lu yéeme dafa am ñaari ndar-ndar sëriñ yoo xam ne dañuy dox di tàllal seen i tànk ci mbedd ndar ba tase benn bàyyi fa mu yor jeewatu mooy ci lu bari di ko jàll ne laissez passer àjjana yaa ngi waay ëcce waay ëcce benn fukk kenn ki ne ko laissez passer àjjana mu ne waaw moom ñooy dafa yëngu rek laissez passer àjjana mu ne ko jaay ci dal mu jaay ko dal kenn ki ne ko yow da ngay dugg ci mu ne ko ah,

ñu teg ci fan kenn ci faatu waaye bu laataa faatu batale woon na kenn ci ne ko man daal lu mën a xew mais c'est pas sa diine xaw ma dëgg la xaw ma dëgg waaye nagam am na te yomb na yow boo may faatoo boole ko man ko dem man bu dul dëkk yi du maa ñu dara man sax buñ faatoo ñu dikk ba te ba suuf ki nga ko batale woon ñëw daal la dafa am lu ma batale woon xasima kii mais woon nañ ko boole ko ñooñu ne ko xasida loolu xam-xam foofu xasida ko def lu néew déedéet muy ne da ngeen may rey waaye danaa ko def ndax mënu ñu xëccoo xëccoo ñu dugg ci bàmmeel dugg ko biir càngaay roof ko dem yéen ñu daal di maasaa ci guddi gi rek guddi gu mu gën di gis mu ne ci njëwaalu mu ne ko ku leen di fi ak lu leen di mu ne ko jaawatu ma takkoon képp ku leen daal kenn du moom ma ne ko kenn du moom. mbokk yi mbokk yi mbokk yi am na bisu xam ne bala ma ko fàtte sëriñ am sëtu nee na ñu ngi koy yëgal ñëpp ci ndigalul sëriñ Muntaxa magam man sax li ma dama ko bëri guddi maa ngi fàttali soxna Bali magam soxna Bali Muntaxa dafay dem le 5 bii ñu jëm le 5 février defi fa mawlud bi guddi àjjuma gi alxames le 5 ca Poroxaan ku ko man te mën a jóge fii fekke si ku jege foofa te mën caa dem ragal naa ne ku ànd ak seen i am sa dem Poroxaan fekke fa ki sëñ soxna bu tudd soxna jaar ragal ci moom fa ñaan ñaan la kon nag na ko ñëpp waajal le 5 février te Serigne Mountakha moo ko ubbi moo koy tëj Serigne bi ma tëj nag ma tëj ko ci gannaaw ba ma sant bu baax njabootu Serigne soxna bu jigéen gépp di sant suñu doom yi ak suñu jarbaat yi ci seen taxawaay ci bis bi ma tëkk ci benn luy tax rek ñu gën a rafet njort ci mbirum sëñ Tuubaa te xam ne fii ñu jàpp fii la du feneen fii rek la dafa am naar boo xam ne sëriñ bi daf ko doon feesloo am xar xam nga nag sunu bokki Mauritanie yi dañoo fonk ndawal ni ko mbusoo bi yi mel ni ci mbusoo bi yi mel mënu ko muñ muut ci aw lakk mu lakk wi def ko ci poosam biñ noddee mën ko ñàkk julli mu di ko mu duggee ci julli ji ba julli ba noppi daal dem nag wutu fourneem daañu ko fourne bi yëpp lakk ndawal gi ñu gi ñu yomb mu lakk lakk lakk ndawal gi ñu wuti lakk lu xonq rek mu teg ci taal bi muy bëti muy bëti ndawal gi ñu wuti lakk mu teg ci waat sëriñ bi ne ko man de mbàkki damaa jaaxle lool ndax damaa am ndawal bi ma yoroon bi may xees loo xam ne ma dagg ci tuuti def sans poste biñ jullee ba noppi ma def di ko mënuma fexe ba mu ndawal gi dugut lakk sëriñ bi ne ko ndax bi nga àndee sama julli gi da nga ànd yow ndawal gi mu ne ko mu ne ko loolu tax nga lakk man ko ànd sama julli sama ko am ci yow gis ngeen ngir wax leen ne Serigne Touba amul tànk gannaaw tànk kanam rek la dafa mas a wax ci njëriñ ne sama borom may na ma ci alquran lu musta may kenn defal na ma ci lu musta defal kenn firnde ji moy bu ma xëyee soxla kaamil ne tay ji dama soxla kaamil bala ganta so dana ko bind rëdd ko waqaf ko suqi ko mas ko tomb ko top ko andil ma ko moo koŋ ci ben bés lolu jamo ci histoire sëñ tuba képp ko sax tey jii gone yi rafaatale ko si ñam si bii sa mëne takkusaan njaboot ko kër gi ñoo xam ne génnin suñuy doom rek ñoo ànd léegi léegi bindu maraatib bindu nooru daal yi fi saa si andi ko nii di barkee doo ko ci alquran doo jël ñu daal defal sa mi ngi mi ngi nii léegi loolu nag muy wane xam sëriñ Tuubaa nangu na sa liggéey bu baax Cheikh ibrahim Fall daf daa wax ne nan kat sàngara bu genn ci bis sama di laaj wéccitam ne nga dese naa man bi <laughs> naan nañ ma delloo sama wéccit ah nee na man bi ku man di dëgg ba xam déssé na dëgg Serigne Mor Xaris bokk na ci man ñi gëna xam Serigne bi na wax ni Serigne Touba ku ci and ak sa sago da nga koo gisul ndax dafa daan misaal ne mi ngi mel ne ñaari waxambaane yu mat sëkk góor war a mat am soxla te kii silmaxa kii di njàcca buñ leen andi dee jongo ba gën ko jaay ki nga xam ne dafa gumba day fab loxoom jàpp jàpp jàpp gàngar ko xool ba xam nu mu tontoon gàngar jëm tàkk gàngar jëm tàkk ci li sukkandiku ba xam lu ko ndaw si ñaar moom ñu amut bët وين من جاكر جاكر ولا وصل خم تارا نحن بيجي أنفق وبوك قوم بيجي نحن تكاي نحن نحن نحن نحن سين تبا كيف بقى خم أم داسا لو تمو أم بس بس أم بس بس بس وين من كم بس بس بس بخور كبير بيت نحن دفع لو قلت مو بيجي أنفق kon nak nan sante yalla bu baax ñu bo rek seen ci baax ngor mayu ko pexe mayu ko tawfiq yalla rek def ma tëjee ko benn bu yéene boo xam ne ci mujjug Serigne Saliou bu la xewee woon maa ngi koy nettali ci màggalu Serigne Saliou sax dafa am koo xam ne ni ma koy faral di nettalee rek Serigne Touba kenn bañu dañ koy umpale moo tax na mu góorgóorlu Serigne bi daf daa wax ne li ma war lépp def naa ko wàccoo na waaye na ngeen fexe ba bu ma ba bu ma kenn yàpp ngir kon ni ñuy présenté sëñ moo ci des am ñoo xam ne nag nañu leen présenté sëñ Tuubaa tax na ñu umpale ko ba teg ko fu mu am koo xam ne ci beneen tarixa la nag mu umpale sëriñ bi lool ba nangu buy ñëw Touba buy dem Daara Jolof sax buy romb Touba day day day day geesu xool fële jaar ci corniche bi dina ko xool bu baax doomam yàlla natt ko ci doomam ju jigéen mu bëgg sëñ Tuubaa lool. ëpp ko tawfeex lool doom ji ne ko man damaa bëgg nekk murit mu ne ko ci sama bakkan doo ko fekk murit doo ko nekk mu ne ko man danaa ko nekk ñu dem ca loola ba genn màggal jot mu tàggu ko mu gànt soxna si toog geneen màggal ñëw mu tàggu ko mu gànt soxna si farsa ñëw bu mu dikkee Tuubaa kër gi mu dal dafa toog tuuti rek daal di faatu bi mu faatoo ñu daal di woo bàyyi bi ne ko dañoo fekk si mu ñëw bàyyi baa ngi mer lool kenn du ma sa ñëw Tuubaa bi jullee jotee ñu jullee ko ba noppi yóbbu ko ci armée yi ñu ne ko ndegam moom doxandeem lépp dëkku fi te ay bokkam fi yaa yaay bàyyam te amuñ keneen ku ko gën a jege ñëwal dugal ko ci bàmmeel bi ñeneen jàpp na mu daal di summi mbubb daal di dugg ci biir bàmmeel bi ne da koy nangu bi mu ne cëpp ci bàmmeel bi rek dafay daal di ne won mo nañ ma woon ko sëriñ ma jëm daal ne wallahi bu ma duggé sëñ Tuubaa la fekk ci bi mu dëgg assas sens bi ñu laataa rob ndaw si dafa la ci mbolé manam sëriñ ni yoon ko mu jëb ñu ba na ko door ko dem waaw sëñ Bamba ci gaaw mais ku yàlla nga fi lool ci allo jërë maa ngi maa ngi jégalu maa ngi jégalu sama kilifa yi jotaay bi yàgg na kon nañ dagg yëf yi nag lu neex du doy sëriñ bi yëngu fenn ñu fanaanam ba suba yi duñ ci doyal waaye la ma waxoon sëriñ ma yaasin ummi rek doy na sëkk da ma yaasin yow ma ñu bañ ci alxuraan yi ngay dégg yëpp de.

amin amin amin amin murid toogal murid amiin murid toogal amiin yaa rabbal aalamiin ñëw leen na ñëpp jóg kii bi jóg na ñëpp